asalaamaaleykum mbokk yi asalaamaaleykum la jeunesse sénégalaise il y a ans de cela on s'était mobilisé pour la démocratie sénégalaise il y a ans de cela dañu jot a mobilisé wu taxaw ne troisième mandat dañ ko fiy tere il y a ans de cela dañu taxaw mobilisé wu ñu ne Sénégal du lu kenn Dix ans plus tard, nous sommes aujourd'hui ici pour le même combat. Mais il y a dix ans, il y a eu 17 morts. dañ koy fàtte rek 17 morts ngeen may ma nag ma lim leen il y a eu Mamadou Sy il y a eu le policier Fodé Ndiaye il y a eu Ousseynou Seck Bana Ndiaye Malick Ba Mamadou Diop Abdoulaye Wade Yëngu Alaji Konaté Tekouba Sidibé Dominique Lopi Alioune Badara Diop Mamadou Bakhoum Aboubakry Dia Yatma Fall Mara Diagne Mamadou njaay El ci Thiam ngeen jëggal ma nag ak beneen nervi bu ñu doon wooyee njàgg ju fële ci buntu mairie bi waaw kon nag comme Macky Sall nee na day tagaat nervi yi ci yoon gi ñun tamit lii di suñu warugar xam nañ ko ba mu jot rek man moom duma waxantu parce que am naa yaakaar bokkuma ci ñuy nervi yi di ciblé man suma yaakaar bu gàtt la yéen tamit bu leen nangu ngeen bokk tamit ci ñuy nervi yi di ciblé te xam ngeen fi may waxee dama ne képp kuy woyu woyuñu ci dëkk bi ngeen won ko woyu bandi may bàyyi waaw parce que ñun wax ci duñ ko raay Sénégal moo ñu ko jaral président de la république buy wuti ay nervi loolu dafa ñaaw ci démocratie wante nag dëgg la naam il fait wante ci démocratie la ñu nekk dinañ ñu may au moins deux petites minutes mu daaneel kàddu gi dama ne mille vingt deux ñaari élection moo nar a am bu ci njëkk mooy local waaw kooku moom dama nekk candidat ci maire de Dakar lu ngeen ci xalaat yéen wax leen ah kon nag wax ji jeex na na ma ngeen ma ci mairie de Dakar na ma ngeen ma gis ci mairie de Dakar su ci yàlla àndee incha dina nekk. parce que ñaan naa yàlla bañ a sori pale bi parce que waa ji foog ma koy bàyyi xel dama ne 2022 dañuy def premier tour élection présidentielle ak deuxième tour élection présidentielle suñu mag ji Abdourahmane Diouf wax na lu am solo nee na Sénégal amul premier ministre nee na suñ ci eggee ñu am majorité cohabitation bi nu muy demee kooku ce n'est pas notre problème c'est le problème de Macky Sall parce que premier tour mooy local te di dinañ ko faj deuxième tour dinañ ko yóbbu ardo élection présidentielle bu 2024 c'est une formalité wax ji day jeex fii ci 2022 fu may daanalee nag mbokk yi fu may daanalee waxoon naa leen place de l'obélisque ma ne leen xeex bi xeex bi c'est au mois de septembre te man duma waxantu Macky mu ngi may dégg na leen Macky wax lu tax mu jël général bu naroon dem retraite septembre lu ko dese woon mooy juillet août ak septembre mu ne da koy jëlee indi fi keneen na ngeen waajal dama ne xeex bi ala kulli al day am te bii yoon xeex bi atte du am dama ne atte du am atte du am dama ne atte du am kon nag mbokk yi est-ce que d'accord ngeen que premier tour 2022 wax leen waa wala déet est-ce que ngeen deuxième tour deux mille 2022 waa wala déet d'accord ngeen xeex septembre kon nag pincez tous vos koras le lion rouge rugé